actu du jour lu ci gën a sa bokk na ci xibaar bi nga xamante ne ni moo am tey ci Covid 19 bi si suñu réew mi lee di Sénégal tey nekk lu toll rek si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo am doomu jàngoro gi di coronavirus bi dooleeku ci lim gu ko amoon bu weesoo loolu lu toll si juróom fukk ak ñett daal dinañ leen di faj tey ba ñu wër daañu ko gën a yaatal dinañu wax ci waajtaayu korité gi ak rek euh, lu ñeel autorisation de circuler yeek mesure yu bees. dossier nga xamante ne nii eh, ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye daal dina ko si jël danañu doxantu ba Touba addu si mbirum Fallou Kébé mu ñu fekkoon ci fos ba yóbbu rek néewam ba ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba eh, ba ca police ubbee ab enquête nag la daal di rek mettre en garde à vue eh, ka nga xamante ne nii moom la bokkal ndey ak baay di Khadim Kébé lu doy war la sa am nag moo di Khadim Kébé daa ñàkk bakkanam rek foofee ñu ko mettroon en garde à vue lu ñeel Bara Touré mu reen di ñaari doomam yu góor yi lu bees nag daal dinay feeñ si li ni mel Baba Bara Touré moomee nag da doon rek def mystique moo waral mu reen doomam yooyee ana rek la leen def daañu leen ko xamal direction de la surveillance du contrôle et de l'occupation des sols daal dinay tojati démb rek villa wu homme d'affaires bii ñuy wax Abdoulaye Sylla di patron wu société Ecotra gannaaw rek ba ñu gisee ni dafa jalgati débat yi si noonu nag maître El Hadji dal di rek annoncé ab kuréel maanaam ab collectif rek ngir euh, taxaw daal di koy defendre si noonu sax moom moom mais maître El Hadji mi ngi def bës rek si stylam bu bees bi gannaaw ba ñu ko gëjee gis moom actrice bii di ndeyxat Khady nga xamante ne ni doon na ku ñu ràññee lool si lu ñel théâtre si suñu réew mi di Sénégal moom moomee nag daal di nañ koy gisaat rekk ci télévision yi démb si ab théâtre ba nga xamante ne nii rek wa illa sax ab série bu ñu teg ci weer wu sell wile di weeru koor wi loolu yëpp bu yembee ñu toftal ci tàggat yaram ak rek club Ismaïla Sarr Bakk la fa am si lu ñeel Covid 19 li moo ci gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal. nuyu nañ leen yéen ñuy taataan xibaar yi ci Dakar bés di leen jox seen wàccuwaay mbas mi si suñu réew mi di Sénégal nga xam ne mu ngi si ñaari fan si weeru mars laa koy tàmbalee bu ñu sukkandikoo nag si communiqué ministère bu ñu ŋànk wàllum wér gu yaram wi e, tey rek e, docteur Alios Diouf e, dégtal ñu la nga xamante ne ni moo si tukkee ci xibaar bu ñu sukkandikoo nag si moom tey junne ak ñeent fukk ñaari test lañu amal juróom-ñeent fukk juróom-ñaar ñoo si positif si juróom-ñeent fukk juróom-ñaar yooyee juróom-ñett fukk ak ñett yi dañu leen wàll fukk ak ñeent yi di ay di ay cas communautaire cas communautaire yooyee nag ñu ngi leen nemmeeku ci gox yi may bëgg a lim Sacré-Cœur ñaar benn Tali ñaar HLM Grand Yoff benn Parcelles Assainies benn Bel benn Wakam benn Yëmbal benn juróom fukk ak ñett wër nañu tey ñu am tamit rek juróom-ñeenti cas grave depuis ba mbas mi ganesee suñu réew mi ba jamono ji may waxeek yéen lu toll ci ñaari junne ak juróom-ñaar téeméer aadama ñoo fi jot am coronavirus bi eh, junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañu si fanweer ñàkk si seen bakkan jamono ji junne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk su traitement. gannaaw ba autorité administrative yi bàyyiwee mesure ya ñu jëloon ngir xeex coronavirus bi ñenn ñi respecté wuñ geste barrière ya nga xamante ne ni ñoom képp ñoo ñu mën a aar jamono ji la ñu nemmeeku nag ca marché bu Rufisque nag euh, comme nu ngeen koy gisee noonu bokk na si lu koy firndeel mu mel ni rek ñenn ñi dañu ignorer existence feebar bi ak rek jëye ya muy def bés bu yàlla sàkk ak waajtaayu bu korite gi euh, ñenn ñi ay si askan wi ak ni ñuy doxale loolee daa mel ni rek dañoo fàtte baatub toog leen seen kër yi eh, ca marché bu Rufisque nag eh, ak pandémie bi eh, teewul rek jaaykat yeeg jëndkat yaa ngay sëmbaxloo ñenn ñi takk masque ñeneen ñi takkuñu ay masque mu doon nag lu ñenn ñi di ñaawlu lool jamono ji ak feebar bile nekkus rek ci suñu réew mi di Sénégal te deltoogul gannaaw benn yoon ba tey ci waajtaayu korité gi waaye bile yoon ci autorisation de circuler yi ak rek mesure yu bees ya nga xamante ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye daal dina koy jël moom nag jëwrin bi daal dinay xamle rek ni askan bu dëkkee wa ilaa rek bu nekk Dakar Thiès ak Mbour euh, nga xamante ne ni fala mbas mi gën laal yoon mayu leen rek ñu jógee ko foofee ngir dem ci beneen gox nga xam ne bokk na si rek ci waajtaayu korite geek bu ñu korite ba ci ëllëg sa ba loolu weesoo nag la jëwrin bi xamle sax ni daal dinañuy dakkal autorisation de circuler yi dalee ko rek ni ki tey si àllarba gi ñaar fukki fan ci weeru mai atub 2020 eh, bi ñu nekk eh, ba nouvel ordre lu ñuy yóbbu nag ay néew ak i tamit rek ña nga xamante ne nii eh, ci wàllum wérgu yaram la ñuy dox bokkuñu rek ci li ca Touba laa jëm ak rek mbirum fàllu kebe ay atam toll ci juróom-ñaar fukk mu ñu fekkoon rek ci ab fosse septique ca quartier Guédé laata rek ñuy yóbbu newam bi ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ci noonee nag la si police ubbi ab l'enquête ngir rek indi lu leer si li ni mel euh, ba tax ñu convoqué frère am bu mu bokkal ndey ak baay ñu koy wax Khadim Kebe daal di koy mettre en garde à vue lu si doy wax nag moo di Khadim Kebe daa piqué malaise ba tax sax élément yu nekkee ca police ga euh, daal di koy gaaw rek évacuer ko kër docteur waaye nag Khadim daa mujjee rek ñàkk bakkanam ni ki démb ci talaata ji fukki fan ak juróom-ñeent si weeru mai atub bi ñu nekk mu doon nag mbir mu doy waar loolu yàlla na leen yàlla buur bi yërëm ca Touba lay desandeek yéen ba tey gannaaw ba mu rendee ñaari doomam yu góor yi baada Touré daa jël lekk seen deret ya daa di koy jaxaseek deretu muusak bu xaj daa di koy sangoo si kër ga nga xamante ne nii rek moom la ñu gisee paaka ba mu ba ko réeroon bu ñu sukkandikoo ci libération mu doon nag luy firndeel ni Bara Touré la doon def rek sacrifice moo waral mu rendi ñaari doomam yooyee lu ma recommandé ngir ma rey leen daf ma ëpp doole ba tax ne rek kàddu nag bokk na si lu Bara Touré mujjee wax laata rek ñu koy yóbbu ca parquet bu Diourbel lu ñeel nag vengeance bi mu doon wax si ñaari soxnaam yu mu xamle woon ni dañu doon njaaloo si ndoxtelu enquête bi daal dinañu koy tegee boor bu ñu sukkandikoo ba tey si libération enquêteurs yi xamle nañ ni rek crime rituel la ngir bañ wax rek sacrifice humain indice yu bëri yu doy lool méngoo nag sacrifice bi ñu wax ne rek la Bara doon def ba ñuy amal nag ñaareelu perquisition réunion bi ci néegu Bara Touré gannaaw interpellation wam bi la laf police rek gis ay mbirum mystique yu bëri lool te doy waar nga xam ne bokk na ci ñetti boppu muus yi mu nëbb rek ci biir armoire am laata loolu ci beneen kër gu parewul ba ñu gisee rek paaka bu Bara Touré rendee doomam yi police nemmeeku woon na fa rek muus bu ñuul bu ñu rendi fakket ak rek ab xaj bu ñu pendre mala boobee nag am sax ay organe ya ñu dindi ci moom Euh, foofee ñu ko fekk rek la ñu ko reyee paaka ba mu defee nag loolee ñu ngi ko fekk si suuf lalu Bara Touré euh, bu ñu sukkandikoo si enquête bi gannaaw ba baara Touré ren de ñaari doomam yi euh, ñaar fukki fan ak juróom ñaar si weeru ba bale ñu génn daal dal di jël rek seen deret gi ngir jaxase ko ak deretu xaj ak muus laata rek mu koy sangoo maanaam rek bain mystique si kër gu parewul góogee Bara nag day wax ak waxaat rek naan xaw ma lu ma jàpp ba ma def li ni mel su ma ko xamoon rek dama leen koy wax certificat genre de mort bi nag gannaaw autopsie bi daa firndeel ni ab plaie traumatique euh, horizontale si ñaari angle aigu moo sabab rek seen génn ba àdduna ñaari tuut tànk yooyee ak tamit rek ay organe yu mu dagg si seen baat yi ak rek euh, ngannaay ba mu yoroon maanaam ngannaay bu ñaw googee di paaka nga xamante ne moom la jëfandikoo euh, si fàtt fàttali résultat analyse ya ñu defoon Bordeaux eh, génne woon na rek trace empreinte génétique u Bara Touré si kër gu paregul gi ñu gisee nag ñaari paak ya nga xam ni sax fal sango mbirum mystikam yooyee bu weesoo loolu deretu doomam yooyu nemmeeku nañu ko tamit si pantalon blouson bu Bara Touré soloon si guddi gu muy jël ñaari bakkanu tut tànk yooyee di ay ndawal yàlla ñi wax ci xibaar bu bees bu ruus ci mbirum mu Mariama Musode euh, Xadimatu euh, Sombi ñoom ñaar ñoo ñee nag ñëpp di ay guinéen bokk fu ñu luwe ca Caaroy bu ñu sukkandikoo nag ci waa kër ga ak dëkkandoo yi e ku ñàkk bakkanam di xaali boobo moo doon provoqué rek saa su ne ak tappaas e kookee di Mariama te da doon faral sax di yor paaka saa su ne rek di tëkku Mariama gannaaw ba mu ko jotee sax dagg ñaari yoon ci loxo ba tey nag bu ñu sukkandikoo si ñoom ajjuma ba mbir mi di xew Mariama daa jënd rek ñaar fukki dërëmu ceeb ngir togg som bi ba mu réeree si noonee rek la ko xaali booboo fekk ca waañ ba moom it dal di teg gazam ak ndoxam di baxal ñaari pomme de terre laata rek ñu fay jotee si affaire bale gannaaw ba xaali boobu bale puus mbalit ma e si Mariama mu daal di ko koy delloowaat nee nañu rek e si noonee rek la ñu xuloo e ba tax rek ñu jàppante ba ku ñàkk bakkanam booba jël di yëkkati rek ndox mu tàng ba mu doon baxalee pomme de terre ya daal di koy sotti Mariama mu ne nañ naka moom moomee moo ko njëkk a soode bu sinoo nee rek la Mariama dal di mbase mooy tondeku li ni mel euh, ba dal di daal di yëkkati moom it ci nu sombeem ba mu doon togg daal di koy rek euh, sotti euh, kookee di xaali booba fekk mu won ko gannaaw ba xaali booba demee nag hôpital teewuñu ko fa ba tey bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi ay pansement lañu ko defal bindal ko ay garab rendez-vous di delsi ak rek jël ay garabam ba ajjuma bi delsee nag mu def benn semaine gannaaw mbir mi eh, ba tey bu ñu sukkandikoo ci témoins yi la xaali booba naanee rek bétadine di ab liquide bu ñuy fajee góom di koy faral sax di bindal wasin bees yi xol bi dal di fuur ñu yóbbu ko hôpital mu ñàkk bakkanam waaye nag nee nañu xamuñ ba xam ndax xaali boobu moo ko def exprès naan bétadine am déet eh, si kàddub nag malien ba fa luwe tamit di des di seen seen dëkkandoo la xam ne rek mooy di xaali boobu mi ngi doon wax ni rek bëtam yi gisatul ba loolu weesoo xibaar bu ñu doon naan Mariama da koo soode sombili ba pare rek dal di daw dara amu si ndaxte nee nañu Mariama frère am moo ko jël si yóbbu ko rek gannaaw ba mu gisee ni moo ko ku mu dëkkal jubboowuñu ba mu ko jot a jam ñaari yoon bay soode wante gannaaw ba ñu ko dalalee ci émission boobee di quartier général Serigne Ahmed Fall daal di xamle lu si nit ñi xër si moom wa illaa ñàkk sago si moom Serigne Ahmed Fall nag nee na Serigne Babacar Sy dafa nekk nit ko am personnalité bëri xam-xam euh, tey rek cofeel bi mu am si Cheikh Seydi Ahmed Tidiane euh, nga xam ne rek moom Serigne Babacar Sy amul woon sago ci Cheikhu Tidiane loolu képp moo waral nit yi bëgg ko nii te amuñu sago si moom loolu la ko yàlla buur bi fay si noonee famille yu Aziz Ndiaye daal dina ñuy may juróom-ñaari million si suñuy koppar général nga xam ne bokk na ci Sam mu ñu jox ñaari million ak téeméeri junne Pape a Diallo benn million ak oustaz Pape an benn million ma junj leen ko léegi ci ndoxtel li direction de la surveillance du contrôle et de l'occupation des sols daal dina ñuy rek euh, tojati démb villa wu homme d'affaires boobee ñuy wax Abdoulaye Sylla di patron société Ecotra bu ñu sukkandikoo ci le quotidien loole nag mi ngi bàyyeekoo ci ministre des forces armées Sidiki Kaba mu collègue am bi di Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme et de l'habitat solicité ni villa euh, boobee nekkee ci village mangrove bu Saly li détruire nañu ko bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nak lu waral li moo di dañu ne rek Abdoulaye Sylla daa jalgati drowu euh, copropriété si noonee nag la maître El Hadji Diouf annoncé démb ci talaata ji ab collectif ngir rek défendre homme d'affaires boobee di Abdoulaye Sylla direction de la surveillance du contrôle et de l'occupation des sols yàkkati rek vilaawam bi mu doon nag lu garaaw lool te dañoo préjudicier ci ay droits fondamentaux wu ab citoyen euh, bu ñu sukkandikoo ci maître El Hadj Diouf ak stylam bu euh, bees boobee di def buzz ci réseaux sociaux yi comme nu ngeen koy gisee noonu. gannaaw ba ñu ko gëjee gis actrice bii di Ndeye Khady nga xam ne rek euh, doon na ku ñu ràññee ci lu ñeel théâtre suñu réew mi di Sénégal daal dinañu koy gisaat rek ci télévision yi ni ki démb ci ab série buy daw ay soppe soppeem nag bég si lool gannaaw ba ñu ko gëjee gis lool tàggat yaram laa koy tëjee ak club Ismaïla Sarr gi club Watford nag bu attaquant sénégalais bi di Ismaïla Sarr nekk mu ngi traversé ab crise gannaaw ba ñu amee ñetti kaawu Covid 19 ba noppi seen capitaine bi bañ a tàmbalewaat rek entraînement yi comme nu ko ligue bu njëkk bi préconisé si ab communiqué nag bu ñu fësal ni ki démb Watford daani day confirmé rek ñetti doomu aadama yi ñu test testé positif ci coronavirus bi gannaaw ay test ya ñu defoon ci terrain entrainement bi ci ñaari fan yu mujj yi ci ñett ñaw ñooy nag ñu testé positif bokk na ci ab jour ak ñaari rekk membre personnel gi ñoom ñett ñëpp nag dañoo ñaan ngir ñu respecter secret médical gi wa ilaa rekk bañ a wax seeni tur ba tax na club bi du tudd tur ba ñen kenn ci ñoom ñett ñooñee li ni mel nag ñu ngi ko xamle ci seen communiqué bu ñu fësal ni kii démb